barki borom Tuuba sama du xadaw saltali fi ramadan maarum tumin ka xablahoo bi fayadaan sama du xadaw saltali fi ramadan maarum tumin ka xablahoo bi fayadaan naajaytu rabbi bi sëri ramadaan sëri lamaani wal muna wal fayadaan naajaytu rabbi bi sëri ramadaan sëri lamaani wal muna wal fayadaan ajran kabiiran wa sawaaban wa jazaa والوعد لي في رمضان النجزاء أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان النجزاء بسم الله الرحمن الرحيم سهر رمضان ذلك سور ربنا خدت سوائدا suwooru rabbina xadat jinaana lanaa ilaa duxoolin aljinaana suwooru rabbina xadat jinaana lanaa suura rabbina xadad jinaana lanaa ilaa duxoolina aljinaana haddama rabbuna binaa durrina wa kaana liidara bi maa yasuruna radiya anilaahu wal muxtaarum rafaatu lillaahi wa maa axtaaru رضي عني الله والمختار رضا بي يدوم ما اختار رفعت لله وللرسول كليتي ووزد خير زول مد لي الباخي كريم خيرا ولي سوى أمري ساخ ديرا

زبيدايا وأزايا واللين إلى سوى أمري ربي المعين الله ربي ونبي محمد وسيلتي له ونعم زمد لم يجعل الله وليس يجعل علي ضرا ولا ينجيل karaamati duxuliyal jinaana biraf iman nawwara lii janaana bismillaahi rahmaani rahiim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman zalika sahru ramadan zakaawu aqliya bi sahri ramadan wa xayri lii qaada xayra fayadaan saka wa xalya bi saari ramadaan خليل أبدهم لأبد الله كوني عبدا وعبيبا للإله خديم أحمد كفاني كل لا سهد لله وأدرى جنده بأنني مع الكتاب هندا هداني الذي أدى منتبزا من آل عفز لي منتبزا radda li xayri laahu kulli mafsada wa kulla mufsidin wa kulla mufsida radda ilaya laahu kulla muslaha wa kulla muslihin wa kulla musliha madda ilaya laahu min haami masas wa qabila alxidmata min haami asas dammanniya alxidmatu lil jundil kiraam وخعد لله بيا خير مرام إلا يخاد الله ما يؤثر لي في سولي وما مؤثر إلا يخاد الله ما يؤثر لي في سولي وهو المؤثر نفع لخيري كل ما لا ينفع waliya xaada maa bi antafion nafaa li xayri kulla maa laa yanfaw waliya xaada maa bihi antafion ajran kabiran wa sawaban wa jazaa walwaadu lii fi ramadaana najasa jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf Euh, euh, sëñ am sax damay dugg si euh, ci li nga xamante ne fi ñu tolloon mooy ci dundin bi ni mu daan dundee ak koor gi mm-hmm. foofu damay relancer waale en même temps avant ñuy dugal ki nga xam li nga xamante ne moom mooy élément bi nga xamante ne mooy relancer li tax ñuy tëj foofu ba pare doo di dugg ci li nga xam mooy waxtaanu Touba ca kanam d'accord illustration la ok Karajo jërëjëf ci leeral bi mm-hmm. tey jaar-jaari sëriñ bi mm-hmm. ci demum géej gi. Euh, foofu Thiedo euh, bu fekkee dafa am relance boo ciy def ndax baax na ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy. sa formation en quelque sorte. Euh, tey parcours am parce que gars yi ñu ngi wax naan 39 ans jëm 40 ans. waaye baax na ci ñu gën a xam exactement jaar-jaaram. ci yoonu géej gi. waaw loolu moom xam naa ne Serigne Amsa dafa am loo xam ne ba léegi dañuy wax ne. loolu sax euh, sunu sang bu baax bu tedd maa ngi koy nuyu. Mhm. Euh, sëñ Ahmadou Rafa yi da koy wax. ba léegi waxtaanee guñu sëriñ bi. Mhm. Euh, ma ci xalaat nag waaye xam naa ni bu fekkoon ne sëriñ bi jaar-jaar yi nga xam ne moom la doomi soxna di am yépp jaar na ci moo xam njàng mi xam nañu ñu ko jàngal bu weesoo li nga xam ne moom moom la loolu la ko sunu borom jagleen ci mën a jàng geeg farlu gi ci xam-xam beeg. mën a mokkal géeg leer géeg yooyu yëpp ndax loolu jagle sunu borom la waaye li mu xam jëfe ko ba àgg fi góor yàlla yi daan àgg nga xam ne lu ñuy wax pali walliw rek sëriñ bi am na ko te waxtaan woowu sëriñ Abdou Lahad ko wax ñépp dégg ko fii ci jàkkee daaru xuddoos yonante bi feeñu sëriñ bi wax ak moom xamal ko ne ko nag fa góor yàlla yi daan àgg maanaam dégg gu ma lu weesu xutbaaniya nga xam ne jamono moom sunu borom da koy teg ci sa loxo. la cay kéemaan kay mooy at ya sax matu ko ndax euh, fanweeri at la ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti weer yaakaar naa wala euh, yaakaar naa sax noonu lay toll. Mm, léegi mu mel ni moom foofu dafa am mar mu ko tab mu tabbi ci moom ndax li mu gis yonent bi te nam ma saafoonteeg moom te mu mel ni am na lu dox ci seen diggante. waaye terewul ku fa mas a àgg ku ne doyal nga sëkk kuñ fiy tagg ak lu mu màgg màgg ak lu mu rëy rëy. ceet noo ngi xool nu mu koy fabriqué. foofu la ñuy tàmbalee. waaw surplus waaw foofu lañ maanaam. boo nee diwkat àgg na ci garaatu xut bu nangam rek. Mhm. xut bul xawsu wala nangam. jeex na foofu kenn mënatu faa doon moroom moroomi kenn. Mhm. Mhm. bariwunu waaye sëriñ bi àgg fa mu mel ni moom daa sumbaat ab liggéey boo xam ne boobaak léegi xamuñu. Euh, lan lu xew lan la ndax loolu lu bokkul ak lañ miinoon loola kat ci Serigne Touba rek lañ ko mës a dégg. Mhm. kooku àgg na fa nit ñi daa àgg. ñu ne ko ahlan wa sax lan nag léegi man ngaa dallu fii kuréelu góor yàlla yi ngi nii léegi yaay kilifa gi. Mhm. mu a bismillah damaa bëgg a tàmbalee liggéey. Mhm. waaw kay loolu. xam naa lu yaatu la nag. dañ ci dañ ci tënk tuuti rek kéem Mm-hmm. liñ ci xam ndax mm-hmm. sëriñ bi moom. Mm-hmm. xam naa ne boo tàmbalee sax day xaw a métti ñu dagg la. waaye xaar ñu ma toftalaale ci rek question bi nga xamante ne moom moo koy gunge. mooy euh, euh, li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram ci géej gi. ñu dugalaale ko ci rek fas yéene ko waxtaan parce que ah. ñu ngi tënk. ñu ngi naan dix ans lañ ko waroon a yóbbu. waaye ñu indi ko ci sept ans lan moo taxit euh, soppeeku bi ak changement bi lu am. ngoone doguma la yàlla bu la yàlla dog. comme waxtaan bi moom question yi dafa war di demandoo. ngir ñu mën koo bàyyi mu yaakal man fi ma gën a mooy coono gi mu daj ngir ñun mhm. coono gi daal moom bëgg naa ngi insta ci mhm. lu metti li ko te dikk dund mhm. ngir ñun doomi aadama yi banni aadama yi waa kay ni ma ko waxee rek géej la goo xam ne géej gu géej gu tey géej gu tey la nag euh, ñu bàyyi xelit ne lii ñu ciy wax euh, fekk wuñ ko mhm. waaye ñàkkul ñu fekke ñoo xam ne mhm. fekke woon nañ ko ko fekke mhm. dëgg la ñooñu am tawféex yi sëñ ba daa ca wax ak ñoom am ci loolu it du ñàkkul xëy nañ ñu bind ko fenn ñu di ko yër ñi ñi bu baax nag bàyyi xel lépp luñ ciy wax boo ëllëgee ci kanamu sëñ bi ñu ñeme ko waxat amiin sëñ Tuubaa kenn wutalu ko promotion suñ mhm. borom moo ko ko wutal mhm. dëgg la mhm. suñ borom ci boppam moom moo ko teg foofu waaye nag suñ borom du wut leen du jox kenn dara ci lu sabab da koo sabab loolu yi nga wax ci yoonu géej gi ak jaayante gi moo jiitu ak lu tax mu am lu ñëpp am ba noppi doo ko jaayante da ko am de ba noppi doo ko jaayante loolu fokk ñu arrière tuuti ñëw ci fa mu tàmbalee soppi koo ci wana ne am na fum mu teg bëtam mhm. da koy indi ca soxna jaariyatulaay mariama busu mhm. ndeysaan ba mu feeñee mhm. la ko soxna jaariyatulaay mariama ba wax te booba bu doon ci nituk simple kese loolu waru koo mën a dégg tam dégg ko su masaana gis soxna si jóg si julli mu jóg taxaw foofu nga koy tàmbalee waaye nag nga xam ne Sëñ Tuubaa aw fit fit gu ànd xel fit gu ànd ko xel baaxul ak jom gu ànd akum jomi kese te ànd akum dogu baaxul Sëñ da aw am fit am xel gunge ko xel mi sax moom daanaka juruñu ci sori ndax sa ka u xàqal kaada misleel wax la waxoon kaada misleel wax ba yàgg sax mu ne saara xaw naa doon ak wax yi ba yàgg mu ne far na ko doon saara misleel wax déggam jii ngay gis ci photo yi noonu mu ne dégg rek yàgg na ci ba muy toll ci nu nit baaxoo jaar dafa toll. Mm-hmm. noonu lañ ko mën a wax mm-hmm. mësee su ko reetaan loo mm-hmm. mbaa nga jëm ko cuqutaan wala nga def ko dara ba mu reetaan. mësee su ko def lu metti kaata ko mbaa nga gëdd ko mbaa nga yuuxu ko mbaa nga def ko lu metti ba mu jooy mbaa mu raf. dégg ji rek la jël ci mas nekk. kon am na fu mu tegoon bët bi. Mhm. moo du borom jaam ñi. ci misaal bi mu nekk ak way juram Mamour Anta Sali alxaadi mhm. Mamour Anta waajal ko lool moom it. Mhm. ndax xaadi la woon ci buur yam jamonoonteeloon waaye moom it ku sàmmunte woon la. ndax wax nañ ni musta dëkk ak benn buur. fu ñu ko mas a sancal fu ab buur fu ñu ko fu ñu mas a sanc. danaa nañ ma defaral kër ca wet ga. waaye daawu dëkk ak ñoom. bi mu nekk ci Mamour Anta yi di nekk ak moom yaram ak teg yinam ca nga koy xame nekk ci ronam rek di ko diglu ci lépp njàngum alxuraanam ak yooyu moom jur ñu ciy dugg yaa gis nga ko ngeen koo xam ndax saayirus jàng alxuraan si bu ñu la waxee baatinub alxuraan bi daanaka du amati solo mm-hmm. waaye nag Sëñ Tuubaa miñ mën a jariñoo comme ni nga ko waxee léegi sëñ Tuubaa mi nga xam ne dañ koo war a jariñoo mhm. fokk ngay am yooyu jaar ngir ñu man koo jariñoo mhm. Oh. Mhm. digganteem ak waajuram ci topp gi mu ko topp mësee sa gis ca yooyu jamono ko toppee noonu waajuram ko di ko xëyil di ko gontal ko bàyyi xel doon dara waaye yàlla defal ko tawféex man mosuma dégg mbaa ma gis ku nekk ci biir daara di fa jànge nekk ci biir daara ji taalifal jàngalekat bi ay ay ay téere muy jàngale. mastaam de. moom la fenn mastaam. leneen la leneen la kenn mus ko dégg. Euh, Mawaahibu Ladunia yéen yaakaar naa. kenn mus ko dégg. bi ko Mamadou di jàngale. Mhm. tawxiid mhm. di ko def ci ay ñu koy def ay tomb di ko kii. Mhm. sëriñ bi ci la taalif Mawaahibul Xudus. yaakaar naa bokk na ci téere bi mu ko njëkk a taalifal. ngir muy jàngale. nga xam ne boobu mi ngi ci biir daara ji di taalifal bàyyam ay ay ay téere muy jàngale. la ilaha illallah. loolu kenn mësu koo gis. mastaam. ci biir loolu. noonu mu ko toppee woon nag. mu nekkak moom. nekk moom ak sàmmonte gi mu doon sàmmonteeg teeg génni waajur. ndax xam nga ne jataay boobu mu amoon ak. xaar yi ma jaxate kala. ak Mamour Anta Sali ba mu koy wax ne ko dammal ci bantu xat boobu. ñëw sottil ñu lii waa ji di wax. xam nga mënoon na ko. bantu xat bi kat mummu ko. waaye ci ay tegginam ngir mu tontu way waajuram da ko ne man de bantu jëmm laa gën a mën a binde. bantu jëmm. moom laa gën a mën a jékko bind xaaral ma dem wuti ko. te bañ laal bantu jàmbur boobu moo tax mu dem mu ne mu ne bantu bantu jëmm laa gën a mën a bind. kon sàmm gi yàgg na ci. bokk na ci sàmm gi itam bi mhm. euh, yaakaar na Samba la mhm. bi mu ñëwee mhm. bëggoon ku koy jàngaleel Mamor Anta Sali wax ak moom bëggoon ko bëggoon ku ko ku ko ko ko yoral ay doo ay kii yam di ko jàngaleel comme ni ko Mamour Anta Sali amee ni ko ni ko Lat Dior woon bi nga ko ko waxee ci kanamu waajuram da ko ne waaw baax na kon bañ génn rek seetal loolu biñ génnee biñ génnee la ko sëriñ bi tontu mooy ñii fi nekk ay doomi jàmbur lañ di ay jullit te lii nga fay woote moo leen fi indi duma leen fi bàyyi di jàngale di dem di jàngale foofu nee dafa tiit ba façoom yoroon da koo jox waaye suñ ko def ci xikkam façon daa xaymaloo lu muy jaar ñu ne ko ñetti téeméer la mën a jar mu jaayul façon ñetti téeméer jël ñetti téeméer yooyu ñetti dag yi nga xam ne moom la àndaloon mu jox kenn ku nekk ab téeméer mm-hmm. te ndekete ñoom ñetti téeméer yooyu mu leen jox ab bor la woon boo xam ne moom la mu leen ko amee loon mm-hmm. bu dikkaat ci biir mm-hmm. sàmm gi te loolu yëfi nit la bi mu nekkee noonu nag ba Mamor Anta làqu ci ci misaal keroog bañ koy waajal di ko denc wala yëf yi ndax ak xam fam jëm mhm. ak ak doyloom mhm. ak fam teg bëtam mhm. bañ ko nee ana Ahmadou bàmba mu nekk ca ginnaaw ñu ne ko topp sil si Ahmadou Numbe maar maar sil ne ko topp sil mu daal di dox tuuti àggu suuf ñu ne ko bismillah gën a la agsi mu ne maa ngi dégg fii ma nekk baax na te lu ngeen wax maa ngi koy dégg boobu mi ngi tàng mi mi ngi sàmmoonteeg teggin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci mboolum jullit mu toog nga di leen jéggat bañ ko waxee lañ koy wax jur ñu ñu yi kii mën nañ ci jaar rek jàll jur ñu kii bañ ko waxee lañ koy wax ci la indi yooyee bañ ko bëggee boole Lat Joor ci ne ko mën na laa féete wala sa fa féete woon sa waajur wax yu bari ca déggin wañ amoon ñoom mu ne leen dem jaale ji ko dey mhm. ngir sama waajur ak kóllëre gañ seqoon mhm. loolu lu yàlla gërëm la tubaarkàlla mhm. am maa jëmmi nag dem ca moom du ko wékki sama dara kooku moom du ma ko man ndax man sama mbir amul kenn ku ma koy wékki ku du yàlla ña fa jóge woon ñenn ña tiit ci am mbett ci moom ñenn ña daa dese loolu indi xaaloo safihun waaye gis nga bi muy bi ñu ko nee bi ñu koy proposé buur yi. Mhm. Sëñ Tuubaa ni muy waye mhm. wala su aksa mhm. wala arju si waa maliki xam nga boobu ay buur lañ ko doon waxal. ba mu demee ba ca géej gi ba ko tubaab yi di wax lañ koy wax. wala su aksa wala arju si wallaahi. xool ni mu ñaari baat yooyu. te benn bu nekk benn bee. foofu nag fi la tàmbalee di àgg. am xet gu koy xeeñ. muy furtoon ne xeet ga xeet ga mhm. muy jëfandikoo baatu wala siina na jaahadoo fii naa mhm. mhm. mu tàmbali di wër boroomam nag am xet gu koy foftandiku di ko xeeñ mu tàmbali di ko wër di ko di ko di ko foftandiku wax nañ ne daana génn dugg àll bi ba jant soñu di ko wër mu ñibbisi boobu wax nañ ne xetuk sama borom ak woo gi ko sama borom di woo ak ci li mu koy woo mu koy mu koy mu koy mu koy seet ci lu ne wala si na jaahadu fii naa mu koy feet seet su fa ne ci lu ne daanañ def lokkat ci misaal taal ay sébb jamono yi ñu daan ruuj di def ay sébb ga di ko taal daana daana diglu kaddu boromam googu di jaar ci kaw yi sébb te du yëg du ko du ko yëg la ilaha nga xam daana ñëw buy ñëwee mbubb mi day soppeeku ngir bu loolu xasee dikk ci moom du teggi taxas du teggi dara waaye nag muy wër boromam ma ba ko suñ ba suñ borom ne boobu ne la nax di yéen sumbala naa nag suñ borom jàpp ci loxoom nag. Mhm. wan ko mbir ma. Mhm. ci yàlla. ci la tàmbali nag ndànk-ndànk di soppi di soppi. Mhm. ba gisanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. seen sutu bu ñu koy nettali dane hmm. dalan ni yàlla ala muhammadi hmm. daaru xudóos la hmm. waaye waxaade ni muhammadun li samadi ginnaaw bu ñu jógee ci géej gi la wenn bayit la Mhm. loolu moo ndar képp liggéeyam sëñ Tuubaa bi mhm. Mhm. moom yàlla moo ko tegtal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li nga waxoon léegi da ko ne fi nga agsi baax na waaye li nga bëgg te di ko wut li la koy may jaare ko ci imaamu rusul waxee bari yéet yi rek mu mel ne kon ab laaj daa dikk foofu mu laaj ko fu mu ne suñ borom moo tegtal sëriñ Tuubaa fa rasulullahi nag dalla ni allahu muhammadi kon foofa la dem. Mm-hmm. foofu nag bi muy am foofu muy toll foofu mi ngi toll ci nag ñeent fukki at yu manqué tuuti. Mm-hmm. te xutbu yooyu deesu ko di jox ku ñeent fukki atam manqué. Mm-hmm. bu ñu duggee ci loolu nag ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa fee ñu jox ko rendi wu Daaru Xudóos. man mii teg naa sama bët. ci këyit ba nga xam ne ci la sëriñ bi bind ne gis gim gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keroog ca Daaru Xudoos yàqasatan laa mën naa mën la wax nee da ko gis jëxërën mu jox ko loxo waaye du cagin da ko gént ba muy ñëw ahlu badrin la àndal ci la ko boobu yi ki koy nettali muy sama waajur ma dégg ko ci moom mu dégg ko ci sëriñ Hamsatu dafa wax ne. Mhm. Serigne Touba da ko ne. Mhm. sama borom daf ko ne sa waa nee na dana la dana la seet si. muy rasulullah mhm. mu ne ko lu mu fi wut ak lu mu may doyee. mu ne ko fa sa moroom yi daan àgg. ñu di leen takkal ay médailles da nga faa agsi mu di la ko takkal si. ndax daa am loo jëflanteeg moom. te gis na ne li nga jot a jëflanteeg moom kenn mus ko jëflanteeg moom. moo tax mu ko indil boppam. la ilaha illallah. sëñ Tuubaa ca bët bu rëy ba. noonu la ko waxee. mu ne ko médaille yi may takkal si nu mu wax ko mandarga yaag yépp mu ne ko ndax mooy mam yor. oh <laughs> mu ne ko déet nag. Hmm. mu ne ko mu dul mam yor. Hmm. soxlawu ko nekkam moom rek laa bëgg. dèjà. mu ne ko loolu bu ñëwee bu ngeen ca waxee ba la ca joxee ndigal yéen ko séq. <laughs> mu jox ko rendez-vous daaru xudus foofu ci jàkkee daaru xudus ji. Hmm. fa la ko joxee rendez ñu tase fa. yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ànd ak ahlu badrin. cay gan bu tedd googu waaye nag booba nee na am na vitrine bu dox seen diggante mhm. boo xam taxut mu àgg ci moom mhm. su amee lu mu koy jox mi ngi mel ni kuy retiré dara ci banque rek mhm. da ko koy yor waaye jàkkarloo wuñ ci guichet bi lay jaar waaw ci bi lay jaar sëriñ bi nee na foofa amoon na fa mbett ndax booba nee na mi ngi yàkkamti jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mën koo teg loxo ngir barkeeloo ko ci jëmmi suñu borom ji nee na mu wax moom la mu wax ak moom ba àggal yëkkati médaille ba jox ko def ko ni ni ni ñuy def ci présidence yi rek bu ñuy jox kenn takkal kenn médaille wax ko mm-hmm. li nga defal dëkk bi garab naa wax yëkkati bëgg koo jox mu téye ngëpp na ko yow soxla woon mm. nee na wax la ba dirin jàll mm. ñi ko nett rek laa la koy mu ne ko danga maa jaaxal sëriñ bi wax ko loolu mu ne ko lu ma la jaaxalee mu ne ko sopp ak bëgg ak fonk ak fu ne ma jaaf ak sama xalima ak si ci bëgg a jàkkaarloog yow di ko ñaan ak a wut ba bisu tey bi ma jàkkaarloog yow ak si ci yow bëggoon a jël sa sama sa jëmm ji fóon ko te mënu ma laa laal loolu nga ma jaaxale loolu day day wane teg tedd nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muñ ne ko dañoo sore mhm. fi nga nekk fi ma nekk sore mu ne ko ndax man nga maa message soriwaay bi mu ne ko waaw waaw hmm. kon sori soriwaay nga bokkut sama diggante sëriñ bi booba ñu ngi jàkkaarloo waaye da ko ne dañoo soree moo tax mënuma kon géej gi mënut a ñàkk ah, loolu avant géej la wala après géej gi gi daara xudus daara xudus avant géej gi waaw mu na ko misaal ma hmm. ndax man nga maa misaal soriwaay bi ma sorente yow te ñu ngi jàkkaarloo mu ne ko waaw li nga taxaw taxawlu mu ne ko suuf mu ne ko suuf soosu bu ñu ko defoon ay per benn bañ a war morom ji mhm. ñu di ko nas si ay peri kurus suuf sa si adduna sépp ñu di ko nas des na ko tàllal ba mu jeex tak te tax nga fekk ma si ma nekk ah, kon fa rasulullah nekk yombul <laughs> te ñu ngi taxaw jàkkaarloo te ñu ngi taxaw jàkkaarloo ci xam nga ne beneen sori ci ja nag ne ño ke nag ne ko lu dul fekk la foofu yi nga nekk wu ko moo bari jom Ahmadou borom jàmm ne ko su fekkee daa am jëf joo xam ne ku ko jëf fekk la fi su ma ko sañee xam nañ ma ko wax ewa eh, su fekkee daa am natt wala yoon woo xam ne sañ naa koo xam su ma ko sañee xam nañ ma ko wax nee na yonente bi mu ñaat ne ko Ahmadou da ngay sama waay te loolu mustahil la lu jomm nii nga ko bëggee nii nga ko xalaate ak ni ko ni nga ko ni nga ko bëggee ah. am na ñoo xam ne <laughs> noonu lañ ko bëggee woon waaye ba ma leen wane lay tax ñu fekkee ma fii day hmm. dañoo jël lii ñu doon xeeb te dem am na loo xam ne bëgguma nga àgg fa ak sa borom ca la ko waxee waxam juree ji jóg taxaw na ko sama sama ruug yi de la sëkkut ndax ci loxoy sama borom la nekk mm-hmm. waaye boo waxee moom mu téyal ma ruugi mm. foo bëgg ma yóbbu liggéey fa sama fit may na ma ko ak sama jom waaw su ma ko sañoo xam nañ ma ko wax mm-hmm. ah, nga wax nag waaye singim sutu fi mu koy nett dana ne suñ tubaa da ko ne mm. sama borom xool fam teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm. te tedd nga sëriñ am sutu jaxate mu mag maay wax waaye da ko ne am sax xoolal fa ko fa ko saga fa ko sama sama sama sang ba teg. Mhm. mënoon naa jox mënoon naa signé contrat ba foofu waaye da ko ne wekk gi ak borom da ko ne xaar ba ma waxtaan ci sama borom. Mhm. joxaat ko beneen rendez-vous nag. Mhm. suñu am sutu jaxate nee na. suñ tubaa nee na ko. bis booba. maa ngi seen ahlu badrin ñu sol seen mbaxana yee mu rafet ci man lool. ba may wax ci sama xel di ñaan naan lu dul bokk ci ñi ko wër rek bëgguma ko daana waaye am satu alhamdulilah mm-hmm. mm. dama doon ñaan yàlla bëgg a bokk ci ñi wër yonente bi sallallahu alayhi mm. waaye njëkk may dem ci gi ñëw ma far wër man ah <laughs> contraire bi <laughs> contraire bi laa moom masiri mm-hmm. mahal axyaar rafiixi mm. mm-hmm. kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabuhu diggante ñaari contrat yi diggante ñaari. moom suñu tubaab ko wax. leer la ah, ah, waxi kenn. dafa dee. par ko joxaate rendez-vous nag. mu hmm. doo ko signal contrat bi ak conséquences yi. Hmm, hmm. ak li xaar ahlu badri al usada waaw man sax saxal waa Sien wala Soro. te boobu loolu ci géej gi. te boobu demagul ci géej gi. li xaar ahlu badrin mooy ñaan gi mu doon ñaan. bëgg a bokk ci ñoom loolu la waaye différence la. Ah. da doon ñaan a bokk ci ñi war yonente bi. diggante bi mu jëflante feeg yonente bi luy tax yonente bi yabal ñooñu ñu wër ko. léegi sëñ bi ñaan bi mu doon ñaan pour bokk ci moom jot te dem ca géej ga sax ñoo ñu wër si ko ñoom lu wér ñoom la àndal bi muy dem waaw ñoom la àndal bi muy dem ñooñu ay ay ay ay gaayam lañ da nga agsi ci fi ñu dajee fi ñu daje mhm. euh, yoon bi jox ko rendez nag mhm. euh, wax nañ ci la taalifee bi yéex gi. Mhm. rendez-vous bi xaw a ci moom sax. Mhm. ci la yàkkamte ba def ci xasida ak xalaaman alaya. Mhm. ndeysaan alaaman ci la ci la ci la. alaaman alaya wala wax na si in su ko boobu bi muy yàkkam ci loolu. yonent bi sallallahu di ñëw. nen bi mu taalif xalaaman alaya. mu agsi. waaye bi mu agsee yonent bi daa muuru. ba mënut a gis kanam gi jàkkaarloog moom waaw ku ne ku ne ku ne ku ne ginnaaw yonent bi kenn mënu koo gis. Hmm. yaa fo yaa ko mënut a gis rek. dëgg la. wala yaa mënut a xam fam nekk rek. Hmm. wala mu daraja ja rek. waaye daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam na foofu. Hmm. kattan ak suñu borom ci ab jaamam it yeesu na na foofu. dëgg la waaw ndax faalu li ma yi rek yafalu ma ay saw la. déw ma fenn kenn déwu fa ab dafa koy wax. aw ma nangam kenn amu ko. Mhm. ab doo fa koy wax. dëgg la xaw ma nangam kenn xamu ko ab doo fa. wax nga dëgg la wax nga dëgg. yàlla foo demut mhm. waaye nga fa toog. yàlla maye loo xa loo amul waaye nga ko denc. Mhm. dëgg la loo xamul waaye nga ko xam toog ci. dëgg la mu muur kanam gi. mu muur kanam gi. nee na bi mu muuree kanam gi nag mu bëgg a jàkkaarloo kanam gi. mu julli ak julli ci biir xasida gi. ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam muri kanam gi ba mën koo gis. salaatam turi nii. mun naa wàcc dana gis kanam ah. nee mu ne murit xiyaanan li yas fiya xal bi jare mm-hmm. nee mu ne murit jàkkaarloo moom mm-hmm. mm-hmm. nee may tàgg di ko jox ah. nee bi mu ne murabban murabbin rasulu nabi mm. nee na bi mu jël kaala gi takkal ko ko ci ndigg bi nee na ci la xamee ci la wax si yim sut ne ko nag booba laa xam ne kon dinaa liggéey ah, daal koy nag signal contrat bi ardaytuhu xasra sinina bi xidam xaalisatan lisil wujoodi wal xidam fukki at eh. la jaayante war ko liggéeyal yonente bi conséquences yi gën a tuuti. fukki at bi. fukki at bi waroon am ci géej gi. conséquences yi gën a ndaw. Mhm. yonente bi ne ko nag li gën a tuuti ci conséquences yi. Mhm. doo dox di gestu. Mhm. suñ jubaa du gestu. règlement intérieur yi. règlement intérieur doo jàmbat. doo wax ay caaxaan doo fekkee fi ñu koy waxe la ilaha illallah. doo teen ci li dul ndigalu suñu borom. Mm-hmm. doo wokkutu. Mm-hmm. Hmm. doo wokkatu hmm. foo toll hmm. da ngay kañ sama borom di tagg ab yonenteem condition yi la loolu condition yi c'est les clauses du contrat mu ne ko nangu naa condition yi koy nangu <laughs> ak lu nattu yi tar tar doo moo gën a difficile sax règlement lu nattu yi tar tar doo ne on on waaw onk on teewut a nekk jàmbaar waaye dañ ko ko tere boo ne on ñu ñu tiri contrat bi te dañ lay sëlbu maa na ngay génn doo bokkati. ah doo dégradé déedéet lay dégradé. Mm-hmm. liggéeyam Sëñ Tuubaa bi mm-hmm. dem ci géej gi ñu bari dañ koy firee mel ne. Mm. daa am ak gaal gu ñu ko doon yóbbu la Gabon rek. mu ga ñëwaat. mais ni de. moo ma insisté sànq ci coono boo lu tax. lii ñu nga teg. lu tax xam nga mm-hmm. mu ne ko nangu naa. metti woon na. mu ne ko foo togg foo toll da kañ sama borom. di tagg ab yonanteem. te tagg bi ak waxtu wi ak tagg bi ak kañ wi doo ko wutal waxtu doo ko wutal heure mhm. te sama borom da lay booleeg noon yu bëgg dox sa diggante tagg wi ak kañ wi mhm. Mhm. te bés bu ñu doxee sa digganteeg tagg wi ak kañ wi lu toll tarfatal mu génn la ci liggéey bi ba déstabiliser la te na suñu borom da ko de maa tasxutu min waraqatin illaa yaalamuha wala habatin fi sulumaati al ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin teelu wax set bu ànd ak di ngelaw courant coupé mm-hmm. fépp dugub mm-hmm. wa dox te diggante mool ya mm-hmm. dugg foofee bruit ba suñ boroom a koy dégg ma ngay jàkkaarloo fepp yooyu itam illaa ya'lamuha xob wur wu daanu rot bruit xob ba mu ngi teew ci kanam suñu borom kon lu ne xam xam naa lépp laa xam waaye lu ne dama koy wutal aw lay ne ko danaa am ndaw lu ma sàkk boole kook yow mu am lu mu yor bind mu yor aw kayit ak bindukaay. Mm-hmm. la ma koy déglu loolu weesuwul sax on. ku lay surveiller boo nee on dana bind ne nee nga on te boo nee on ñu dindi liggéey bi. contrat mu ne am sotu alhamdulilah. Mm-hmm. ndaw loolee de. Mm. foofa la ma toppee ba ni ma dikkee. Mm. ba ni ma gànnaar ni ma gànnaar ba ni ma ñëwee njëriñ néew ma oh. mu yóbbuwaatu këyitam. sëñ bi ne ko loolu mbàkke yow rek yaa ko man mu ne ko waaye def nañ ma lu jaar oh nag. Hmm. ci Ndakaaru. def nañ ma lu jaar oh. waaye jomam moo ko mayit mu ne oh. wokkatu lu am solo la. Hmm. waaw. wallaahi tawaañewul dara ndeysaan. ak xam nga seen loo ragal. Oh. mu war la nekk ci sa ginnaaw. ñu ne la bul gestu. dàq weñ ak rey yoo. waaw ah, piqûre képp bu ñu koy def nit fi ne nii da nga bëgg xool ba xam bu wér ba xam li muy def lu mu doon. Mm-hmm. sëñ bi dañ koo tere woon gestu su ma sant di wëlbatiku dinaa wëlbat jëmm yëpp lay ànd boole moom. Mm-hmm. du wax ca kaw du wax ca suuf. Mm-hmm. te lu wax nga dégg ko. mais contrat dix ans lu ko indi sept ans lan moo indi coppeeku gi. ci laa jëm si. conséquences yi bokk na ca. da ngay génn dëkk bi. dëkk bii ci Touba da koy génn mm. ndax yaa taalif sa xasida mm. wax ca na nga bëgg dëkk bi mel ko mm. ak li nga bañ ci dëkk bi lépp mm-hmm. mm-hmm. suñ borom may na la soo demee kër Sëñ Saalix fañ daan wax faw sëy ni foofee la sëñ bi doon taalif yi xasida googu muy mat lawul faw sëy ni mm-hmm. yaakaar naa moo tënk liggéeyu Touba ca kanam Touba ca kanam bokkatul mubaarak ba mu koy taalif wax nañ ne ca gaynde gay dàq njaay àll ga ba ñëw réussir ci kanamu sëriñ bi. bi ña bi gaynde gi séenee njaay àll gi dafa ragal ragal gi nga xam ne moom la njaay àll gi ragaloon. moo ñëw ci gaynde gi ba mu mel ne moom it daa gis lu ragal. loolu li muy firi ca masaalikul jinaan waxaay suma taqaf. ilaa xakal ahad yaqaf ka min xawfika hu kullu ahad. soo ragalee yàlla. mboolem lu yàlla sakk. dañ lay ragal. bàyyi la xel moo tax suñ moo tax suñ tubaab lépp ragal. si yëm sutu jaxate neen sëñ xëyr yi nee mhm. am na bés muy am question yi muy laaj si yëm sutu mhm. benn bés si yëm sutu jékki jekki rek tàng ba bëma ko ne ko Moodu xëyr yi jógul dem mhm. sëñ Tuubaa sama pëju néeg bi mu leen ko gën a ragal oh. daan garab yi ragal nañ sëñ Tuubaa bañ koy takk ci garab ga ndox yi ragal nañ sëñ Tuubaa ba mu julli ci géej ga suuf yi ragal nañ sëñ Tuubaa bañ koy suul ca pax ma Mm-hmm. doomu adama mi xamul dara moo ñemee Sëñ Tuubaa loolu la ko wax. foofu lañ nekkoon ñoom. Mm-hmm. waxay suma taxaf. Mm-hmm. ilaa xakal ahad yaqaf ka min xawfika hu kullu ahad. sëñ Muntaxa nee na yonent yabu ko malaaka yabu ko. lenn ni boromam yabu ko. mu ne kon na génn dëkk bi. boo bëggee liggéey bi tàmbali. am nga it sa nijaay. yoo xam ne ko sori ci yàlla la. su ma juumut du sore suñ busóobe suñ busóobe buso baa xam am na ci cër yàlla boo xam ne mhm. su te xam nga suñ busóobe boo xoolee Touba ji euh, njëkk ja ba muy waaj ñëwante ñëw ñëwante ko ba ko ñëwante woon bëggoon sëriñ bi lool mhm. mu ne ko mhm. li feeg mi ngi dund liggéey bi du tàmbali ndax bu ñu la ko tegee dana ko gis te bu ko gisee dana ñaan yàlla mu tegg te bu ko yàlla tegee dana ko tegaat te te maanaam liggéey bi du woon loo xam ne da koy dañ teg nii. Mm-hmm. mu mu ñu teg ko ko rek. Mm-hmm. maanaam bu bu nee dama daa sonn ñu teggi teg nee déedéet boo xasee yenn doo doo yéene ndax nee na am na nee am na ñoo xam ne yenn woon nañ ko. Mm-hmm. Oh. ba mu ci seeni i wóom mënuñoo dox. ñu tegg ko fa tegaat ko am na ñoo xam ne jot nañ ko yenn waaye mënuñoo dox. am na ñu jot dox dox tuuti waaye dañu dëppaat ñëw. seen blaat nee na loolu dikk na ci sëñ Musaa Ka. yan bañ yenoon xut bu ya ñooñu dañu ay coobare. Mm-hmm. ñooñu ko yoonam. Mm-hmm. ay xaarifiina billaahi lañ. Mm-hmm. waaye fadlu taxsiis nag. wa anna al-fadla bi yadillaahi. da mu ne ko yan bañ yan xutbu ya ak ab daal kon yan nañ ko te atta nañ ko la ca teg de. ko fab raw gaa yan ba yenoon xutbu ya ak ab te attanul yaa ko raw gaaya yambanu yanool xutbu yaa rab yaa te attanul yaa ko fab raw gaaya dëngañ balaa sooratul ahwaani la am ci laaya sëriñ si naa lañu ba kaamil mbër yëpp lañu sëriñ ba may kaabal sëriñ lañu ba may kaamil mbër yëpp lañu sëriñ ba may man zakka fi zalika fal yu jaribi wa ma yu jaribi baadi taqarrubi jaayante naag yàlla te dootul xacc rijaal ya seere nañ ko mas na sa ji loola taxoon Cheikh Bamba yaa xaw sababu xaybati ya rambu réew mi sababu xaybati ya anna laaha araada anna naala minu jaaha wa an akuna saafian li qawmi wa an akuna qaadiman fi nawmi ku fas ni bamba sa maasum baaya dëgg jógal ànd ak sa te dem làmbar na del si ñu gis mm. sëriñ si yéen a ngi nii teegeen a xëy daje bis te def nii nu def jébbal ko seeni kurus day yokk diine di ful wërsëg di guddalu fan di fekk lor ak tartar kër kër ku weddi na mos xaatal du filmaari jamono ma Congo kenn du ko tollal ci wàññee leen ma Congo Congo ku sàkkalum kem borom tubaa ci réew mi ndeysaan yow da ngaa demul nga boo fëggee jaaree ma Cheikh Ahmadou Bamba kàbbar ca duus ya delluwaat ca gaal ga cey borom Tuuba goree la tee rayloon ya diigal gaal ga yow rekk a génn réew mi noora diitoo yaa tax nu moom suñ bopp tey bay feetu dëgg la bu dul ko nag dem ni nga dem ci géej gi tubaab du nu xam ni waaye rasuulay géej gi bi nga dellu fu ne jàkka yaa nga fa sang tey ñuy sant rek ku ne jàmm xew ci sa diine tey lislaam ngi Cheikh Bamba mooy ki ko donn tey ngir mooy ka ko téye woon ba ku nekk jot yi la alal xadim di ki yàlla may wax leen jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf na ko yàlla fay. jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Moustapha ah, neex na lool. jërëjëf macha allah jërëjëf. dañuy wéyee rek fi ñu yemoon ci waxtaan bi. balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy xanaa nag waxtaan bi sax introduire na li nga xam ne moom mooy liggéeyal Touba sa kanam. moom kay tubaarkàlla ah. bàyyam sax. addina mm. euh, sépp a ngi lay déglu. Mm. Euh, moom commentaire yi daa mel ni nit ñi mm-hmm. dañoo bëgg euh, saako bi nga rokkos ko. Ah, ah, yow gën a la tënk rek. Ah, waa Teranga Firdaws ñun rek ñoo lay euh, waa Teranga Firdaws si ñoom jox nañ ba barkeeloon nañ. ziare nañ sang bu tedd bi. waaw li nga xamante ne moom mooy babouche ak. Euh, ak ay dàll. waaw waaw rafet ñoom it kenn ku ci nekk jox nañ la ñaari peeru. Masamba ak Yusufa waaw Yusu waaw Yusufa. Masamba ak Yusufa ay taalibe lañu ay taalibe lañu bu baax wax dëgg yàlla. ay taalibe lañu leen di gërëm bu baax di sant bu baax. soppeeku contrat bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ak ñaar wala ñetti xarbaax ci géej gi rek. di ko jëlee ci ci fukki at. yóbbu ko ci sa waaw mooy xam naa ne moom bu ñu ko toppee ci ni ñu koy waxee. waaw ah. Sylviane sa bul fàtte coono gi de. day day day day day day gudd. waaw ah, coono gi de lu ma ñor la boo ci bëggee jaar na nga ko xamee. Mm-hmm. waaye rek. Mm-hmm. Euh, kon foofu la jaar ba dem ci géej gi rek. ci gàttal. Mm-hmm. Euh, dem Mbàkke fanaan yi Mbàkke bari. ndeysaan. guddi googu. bi ñu ko waxee loolu. ne ko fokk nga génn dëkk bi. xaar ba sa. ndijaay jooju nelaw mm-hmm. génn àdduna nga doog a tàmbali liggéey bi mm-hmm. kon nag bi nga xamee ne nag fanaan ne mbakki bari moom mm-hmm. problème boobu daal dinay réglé wu mooy génn na dëkk bi kon bi loolu amee nag ba mu dem ci géej gi li géej gi euh, la fay xew asiiru boo ñëwee ba ndar fa la ko binde wax nañ ne dafa ko tàmbali jox ko sëñ Moodu Njaay Maabe assiru wax na ci loo xam ne ci géej gi la xewe ndax dégg nga ci fil bahri <laughs> ànd googu ma ànd ak ahlu badrin itam feeñ na ci ndax nee na Assirou gu njëkk gi dox lay firi Assirou gu mujj gi prisonnier lay firi ñu koy tekkee Assirou mahal abraari ànd ak gaa baax yi xiina <laughs> Assirou waaye wa sànnal xidaa mooy noon yi anii hunaaka foofa ma nekkoon asiru prisonnier la ñene ci bi biti ñu ak encercler ma nii te booba ci sagoom la doon doxe loolu jëruñu ñu ndaxte tund jeewal gisee na fa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne ko wala yoxsimu ko may naas jama sama borom wékkoon wékk naa la ko dana dana metti dana yàgg waaye doo faatu tubaab su ñu am soxla ci jël suñ tubaa di ko jëli fii di ko yóbbu fee bakkan bi lañ soxla woon waaye yàlla moo ko aaral bakkan bi ba woon ci moom dara maa la ko wax de ci la jógee noonu nag ba dem ci géej gi mm-hmm. bi mu demee ci géej mm-hmm. euh, kon mbooleem lu waay doon sàkku mm-hmm. ci lu baax ci yàlla amoon na ko waaye nag sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha comme noonu ko si Moussa Ka waxee waan akoon a saafi xan fi xaw mi waan akoon a xadima fi daw mi euh, maa ngi jégalu sax ci bi may nettali léegi ci ci ci euh, xasida googu nga xam ne mhm. moom la Mamour Anta Sali daan jàngale mhm. umul euh, barahin la umul barahin la waaw sama xel moo faay ba ma wax la neen waaye umul barahin la waaw mhm. la ci sama xel di euh, bi mu dem ci géej gi na ne am na leneen lu mu teg bëtam loo xam ne loolee nga xam ne moom xutbu boobee mu yoroon ak yee ci aju moom ci ndigam la ko takk fas yéene wuti loola nag te loola mooy suñu xet li ko ñun adduna ak alaxira waaw li Omaro di wax moo tax mu waxoon sëñ Amsatu Jaxate ne ko war ngeen a góorgóorlu bu baax ndax man de bi may dem ci géej gi fekk na lépp luy war a am am naa ko noppi dëgg waaye yéen rek yéen a ma taxoon a dem ngir xeetali leen kon bi ñu demee ci géej gi itam euh, ci jom ji ak fit wi lañ ko doon tere ca biiro ndar bañ ko ne ndax yaa def nangam. mu ne si gét woo ne woo ki ko wax. loolu la continuer lan si ñëwoon ci biro ndoor itam. raditu billahi rabban. wa bil islaami diinan. wa bi quraanin dalilan. wa bi sayidina muhammadin rasulullahi salallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa imaman. qul huwa allahu ahad allahu samad. lam yalid wa lam yulad wa ahad loolu la fa loolu la fa si ñëwoon. loolu it da koo da koo ci jëmm ji. ba niñ ko jëlee foofu ba niñ ko yóbboo ci géej gi. fuñ waxee mu ne ko yóbbu. mu naan raditu billahi rabban allahu rabbi wala usriku bi mhm. ñu jële ko foofu yóbbu ko ci barab mu naan allahu rabbi wala usriku bi mhm. ba bis bi nga xamee nag ci lañ ko tarale mooy mu gën a taral lam doon wax mhm. ca la ñaajoo nag ne leen allahu akbaru mimma kuntu afxaluhu wala su axsa wala arjusi wallahi seen yii ngeen may joxoñ ak di ma ko def ragaluma ko man ku dul yàlla ragaluma daan na ko tayit sama sama sama sama fàttaliku ak euh, sama cant ak sama tudd ak sama cant ak sama xol ak sama lépp loo xam ne lu may sàkku la yàlla kepp sikri yi wa sukuri yi wa ridwaan yi wa mahamadati yi bil xalbi wal jismi wal aqlaami lillaahi sama lépp yàlla laa ko juble laa ko jubale amul kenn koo xam ne maa ngi lay bàyyi xel ku dul yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu it ñooña suñ borom xirtal leen ci moom ñu teg ko natt yu métte métte métte métte métte loo yaakaar na duñ ko teg doomu aadama teg nañ ko Sëriñ Tuubaa te suñ jëmmi yee taxoon am na benn baat bu muy wax sëñ bi mooy inni ujaahidu ba fii may wax ak yow ku dul sëñ Touba boo ko waxee fanaani kaso. loolu mel na ma ko waxee woon mooy tubaab ko waxee woon Dóor mën na ah, waaw kenn ku ko ñemee wax ci kaw suuf amut. fi mu ne nii ngay fanaan. fi nii ujjaaxil. te loolu. Ah, euh, euh, mi ngi wax mi ngi bàyyi xel bu baax rek. Mhm. rabbi asxaabaka bil himma joojee. Mhm. ndeysaan. wala turabbihim bi dars. Mhm. ñu bari dañu naan sëñ bi daal tasoon daara ji déedéet tasu ko. déedéet méthode daara ji la soppi. la soppi ku mën a boole njàng mi ak tarbiya gi. bis mm-hmm. fa lillahi alhamdu wa sukur mm-hmm. mm-hmm. ku ko munta boolee demal seeti leneen ndeysaan loolu la daan wax ndax himma boobu nga xam ne mooy mooy mooy mooy moo ko taxoon a jóg moo ko yóbbu ci géej gi bi mu demee ci géej gi itam nekk fa di wéetal yàlla ak di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taggee ko nu ne waxee ak moom nu ne ci biir ñooña dégg ci sama wajur mu nett li ma ne Cheikh Mouhamadou Mourtada nee euh, bokk na ci moom li ñu yéeme sëriñ bi bokkut ak li muy yéeme sëñ bi moom li muy yéeme sëñ bi mooy xasida yi sëñ bi defoon njëkk muy dem ci géej gi te foofu ba mu nekkoon ci ak yaatoom kenn xatalu ko kenn defu ko nen booy xool xasida yi nga xam ne daa nekk ci xat-xat xasida yooyu sax booy xool nee moo moo gën a riis gën a gën a neex gën a ëpp kii inspiration bi ci la gënoon mu ne loolu kon wane ne na jom yi Sëriñ Tuubaa ak ak ak aku fitam aku dogom dogu gi mm-hmm. mu nekk foofa nga xam ne maa yomb la gën a yàgg mu ne fa ndax bi muy jóg war a jaayante ci Daaru Xudoos daa am lu mu waxoon ubaayihu yow ma rasulal Mustafa bi xidmatin wa asalullaha wafa dafa jaayante kon uhaahidullaha xalaa axsil kitaab bi sunnatin uh, bi xidmatin lil Mustafa baa bi sawaab jaayanteeg yàlla ci liggéeyal ko fas yéenee dëlanteeg moom jaarale ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran fas yéene lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarraaw inni ahmadu yeetal yeesal diine l'islam rek ndax xam nga yëf dañ koy tënk ndax lu bari suñ tubaab alxuraan ci ca bu njëkk ni mu fekkoon alxuraan ak yi ci aju yëpp mënees na koo waxtaane waaye rek kon ñu dugg ci euh, bi nga xamee nekk na ci géej gi ak lam fa jànkonteel mhm. ci ay coono très bien lam fa jëflanteel ak tubaab yi mm-hmm. tubaab yi xam ko bu wér mm-hmm. te sëriñ bi nekk na ci géej gi ba jóge fa mm-hmm. bu nee sami xalaaw li min xamide kenn na banaa wala kalam kenn ndax kenn nekku gaal yi bari wax nañ ne gaal goo ci gis mu nekk genn jàpp rek ci géej gi la ndax gaal yi lu mu bari bari moo ko daan roñal boppam di ko tuxal te dañ ko daan jëli ci barab di ko yóbbu ci barab taatu màngo googee nga xam ne yàgg na fa lool lu bari fa la ko fekk am na bis boo xam ne tubaab bi dafa mer dégg nga ñëw wax ko lu bari daal di joxe ndigal ci ne lu waaye am ci lu bon mbaa lu baax mbaa lu waaye am ci lu bon mbaa lu muy wax nañu wax ko ko mbaa mu def ko ko wax nañu am na màggatum euh, tubaab moo xam ne da daa bëgg def dara sëñ bi waaye attunu li mu ko bëgga a dóor mbaa li ko bëgg def nee na te na koo def dara lu bon daa yooyu póon ba mokk mu ñu buusu ko ko bi mu ko ko buusoo xelam dem ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bañ koy soppi sedd rythme sedd rythme ba mu sujjóot ca kanamu Kaaba ga xelam dem ca loola fa muy roy roy téye fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wiital yàlla foofa suñ borom rukk ko ne ko naka mu mu ne ko allahu rabbi wala usriku bi li mu metti metti boolewuma la kenn ca la waxoo bàyyi toxoo joojee fil bahri tahta sajara waa wa wal wal wal wal bahru musbitun waxaw lii fajara waaw di gaa ngi duusu ay ay kàccoo rek ma wër muy rampali waat jom ja ak dogu gam amoon ca ubaayu xiyama rasoola ja mu bàyyi xatu waat ko fil bëri tëxta sajara ji yeesal ko yeesalaat keroog am na bis muy defar mbaar mbaar mi saa su defaree rek taw bi ñëw yóbbu ko mhm. euh, am ku ñëw di ko ko ci jàppale waaye kooku da ko ne man de benn néeg laa fi am ako waañ mhm. te du ni taw mi ngi defar ay xasida yoo xam ne suñ borom da ko ne bu xasida yi tooy bu ci araf far ba noppi di taw mu tatafu ko foog kaala gi muur ci kooku ne ko man de aw waañ laa fi am ndax maag sama soxnaa fi nekk soo mënee dugg ci waañ wi fanaan fi keroog sëñ bi ca waañ woowu la fanaan waaye rasulullahi tax mu fanaan fi te ko gan goo amoon tey ji lu mu tedd tedd tedd tedd lu waañ wa lu lu mu doyri doyri lu waañ wa rafet rafet rafet rafet rafet rafet soo ko fa fanaanee foo xam ne boo xoolee xam ne ci waañ nga ko fanaanal mu ne da nga koo doy dal Sëñ Tuubaa nag Rasulullah ko jaral loola moom kon bàyyi yaxtawoo fil bahri tahta sajara ci la jaayante jaayantem googu baag ci sax di wax tubaab yi ne leen li ngeen nekk ay caaxaan la ñëw leen ànd ak man ci li ma nekk nga nekk ci barab waxoolu la fay jële waaye ngay wax luy mel na day tax nga gën faa toog mm-hmm. loolu ci suñu tubaab la si ko mas a gisee mm-hmm. tuuboo lahu mm-hmm. yaa sawi taslisi fi xajalin wasaari xoo xab la mawtin baax dahoo na demu bàyyi leen seen caaxaan yi te dem tuubi da ngay ñëw ci sama borom mi nga xam ne mooy aju topp ci li rabbikum saari xoo ñu koy laaj koy kookuy kooku maanaam li rabbikum saari xoo a baxan maxan bi xaw fi man sonsiyaat anis bii sulam allahu baaxin xadimun laa yusaawihuma bilbaali yaxturu waxal mufradun xalam mu mel ne dañ naa ko dangaa am yàlla ñu am yàlla di ko wan ne ko dangaa am suñu yàlla ñu am mu wan leen ne yàlla kenn rekk la amoon yu sallis faridan malikan samadan fa jaahilun wa yulaaxi kulluhu al alamu laqad kafara allazina qaalu inna allaha saalisu salaasa kon loolu la fa nekke woon lañ ko doon tere bàyyiwu ko te ko doon tere bi ko fi indiwaatee daa gën jolli yàlla lañ ko doon lañ ko doon bàyyiloo mhm. ba mu demee si géej gi foofu la ko gën a wéete mën koo def mhm. ndax ba mu fa jógee itam bañ indiwaat ko fi ñu ko indi woon fi ñu ko jële woon mhm. bi ko fi indiwaatee it taxut mu bàyyi ko ndax am na bés boo xam ne àgg nañ ci bëgg jëflante moom ci sayir te lañ ko takkee ca garab ga ndeysaan takk ko fa si yéene jëflante moom ci sayir tàmbalee ci cinq quatre 3 2 1 bu ñëwee zéro ñu teqaloo fi ñu toll ci wax zéro suñu borom téye seeni làmmiñ te la sidna jibril wàcc ànd ak ahlu badrin ne ko sa borom nee nga xool wan façon alagin nga wag ba ku la ne alagale alagale ñii ci bëgg a jëf leen ci nii xeleen dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ koy ba xaañ ko ba dagg tànk ba ba der wa kole ca ba ko sidna jibril dikkalee ne ko sa borom nee xool wan façon alagin nga bëgg mu ne ko dañ maa xamul rek xamuñu ne may rasulullahi te xamuñu ne moo yàlla bu ñu xamoon ne may rasulullahi te mooy yàlla duñ ko duñ ma def nii mm-hmm. na leen xamal rek te waaye jéggal naa leen mm-hmm. suñ tubaa ne sidna jibril xafaxutaani la aday turan li washi man nafaahum li xëyri sarmadan la soidefon mm-hmm. jéggal naa leen ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne seen pexe yooyu moo tax ak siwut ca lañ tàqale koog moom nag foofa foofee la ko suñ borom waxee nag ci question bi nga doon wax léegi lu tax sëñ bi def foofa juróom-ñaari at juróom-ñaari at yu teg ba noppi sañe woon fukki at mhm. jom ja la mhm. Mhm. ndax ardaytu asra sinina la waxoon bi xidam xaalisatan li sil wujudi wal xidam yaa ngi ci durée d'exécution de travaux ba noppi nag mu jógee fa foofu nag bañ ko tekkee ci garab ga ci la ko sama borom déey ne ko da ñibbi da ko ne ñibbi woo wala boog boo dee ñibbi it demoo toog liggéey bi nga doon def fii jeex na léegi nag li des mooy liggéey bi daa jeex te temps bi des kon da ngay dem Sénégal waaye boo demee Sénégal nag toogoo fa da bëgg nga dem Mauritanie looloo ko yóbbu gànnaar looloo ko yóbbu gànnaar waaw mooy mooy ñëw gànnaar desitu li nga xam ne moo moo des ci fukki at yi mhm. gànnaar nga koy mott li jee mooy ñetti at yi mhm. ñetti at yi des ñaari at ak quelque da ko fulal mhm. juróomi weer weer wu nekk fukki am at muy juróomi at am na ñoo juróomi at yi manqué na ndax ak sasin la fa dem ba ak sasin la dem gànnaar asasi wala wala wala euh, lasasi la dem njaareem la ñëw la ñëw la ñëw ceen euh, euh, la ñëw njaareem kon ñetti at yi dañ ci teg ñetti at yooyu nag suñu borom da Euh, maye fa nekkoon ca gànnaar dafa am ñoo xam ne ay ay ay borom yu baax lañ woon mm-hmm. yoroon ay cër mm-hmm. te bàyyi nañ fa cër yi dem mm-hmm. te seen cër yooyee ña fa nekk attanuñu ko te man yàlla dara du jege ci man dil siwaat ma bëgg nga dem fa ma teg la fa natt yu ko jar nga boole kook lii doo ko mën a jëfandikoo kon sëriñ bi liggéey géej gi noppi na ba mu ci ci loxoom waaye sañu koo jëfandikoo kon day mel ne foofu la ko togge gànnaar Eh, eh, te géej gi la ko toggee mm-hmm. waaye njaareem la ko tibbaatee nag mm-hmm. Mm-hmm. gànnaar googu nag mu dem fa sababu saahir bi mooy tubaab yi yóbbu ngi ko fay yóbbu boole ko Seex Sidiya ngir mu dem bu demee xëy na naaree fa nekk mën nañoo dox digganteem ak ñi koy topp ci complexe su euh, euh, euh, nit ku ñuul ak ci aju tax ñu man koo bàyyi mhm. ak xam-xam bi nga xam ne naar yi am nañ ko mhm. te sëñ Tuubaa moom xam-xamam mhm. suñ borom moo ko ko la xalamani laahul alim mimma yasa umil huruf wa sabbi xidli bi kuloom mun sarifan bi safadi kon xam-xamu bu yàlla la yor ba gànnaar nag euh, sababu saahir bi mooy loolu sababu baati sababu baati mooy sababu saahir bi mooy bi mu dikkee dër mën naan ba agsi ci war a dem gànnaar ci la tubaab yi Madagascar lañ ko bëggoon a yóbbu. Madagascar Madagascar lañ ko bëggoon a yóbbu. waaye nag ginnaaw bi ñu ne nañ ko yóbbu gànnaar biñ xirtalee ci bëgg ko yóbbu gànnaar ñu gis ne euh, moom xam na sababu baatin ba. bay xaar ndigal la. ñu def seeni pexe ci xam nga ne sax bi muy nekk dër mën naan googu bi mu ko sancee ba nekk fa euh, ci la. Euh, mbirum mbaaxaan ak si foofa mhm. ak euh, bursin ku mëndoo feen mhm. booba mbaaxaan la tudd tudd gu Abdou Xafoor mhm. euh, bañ gisee bagage ya tànki lal nekk ca ñu jàpp ne ay ngànnaay la ba dem wax ko ko ba mu dem wax ko tubaab bi ba mu ñëw foofu da nga fi indi jikkoy Sëñ Tuubaa keroog mbaaxaan bi mu ñëwee da bi mu ñëwee dër mën naan ci jikko ju rafet ji yéene ji mbaaxaan indi woon foofu ci misaal ak la ko sëriñ bi faye ndax ba mu fa yendoo fasam yee dañoo lekkut sëriñ bi moo ko xontal ay fasam am na ci mag yi ñu wax ne ko kii li ko taxoon a jóg mu a leen bi mu fii ñëw li mu am rek la indi bu fi dikkee lim bu ma laajee nag li rek laa koy mën a jox muy sama makaarimul axlaaq waa sëñ am sëñ bi nooyalantewul ak tubaab bi waxul ak moom lu neex maslaawul ak moom lii mu def ak mbaaxaan xanaa daa tegtale ne xamoon na fu muy mujj ci moom xamoon na lépp mhm. ndaxit it euh, sëriñ bi mës laa wut a kenn ku jëmu ci yàlla musta mës laa kenn ku jëmu loo mën a wax danaan wax naan lislaam a ngi nii daa rëdd rëdd wi daa tomb ca digg ba daan lislaam ngi nii rëdd wi ko wër moom laa ko ñage ku jéggi rëdd wi maa ngi sa kaw loolu laa wax ku jéggi rëdd wi rek maa ngi ci sa kaw ak koo mën bi mu dikkee foofu nag ci la jógee Daaru Manaan dem gànnaar kon day mel ne tig tënk rek doomi bañ a duggaat ci euh, sababus loolu waaye euh, këru euh, gànnaar googu kërug man Daaru Manaan googu ba ko sancee nekk fa diir bu gàtt ci la tubaab yi jël si mu war a dem gànnaar mu war a dem gànnaar xam nga ne am na bis boo xam ne liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko ci géej gi muy xasida yi mhm. da koo jël gas benn bis mhm. woolu lenn ci mag ñi am na ñu siim sutoo nga ca woon mhm. gas loo gas loo am pax mu xóot ci biir këram mu jël gaal yi juróom-ñaari gaal dugal ko ci biir suul ko am na lu muy gis bañ xëyee la kër gi tàkk ba kër gi tàkkee ci la ko maam Cerno Birahim joxoñ këram googu yi ñeewantu na ko ci sax ne ko man de kër gi tàkk gim tàkk sax méttiwut ci man jaaxalu ma ci waaye li ma ci gën a métti muy sa liggéey bu sell bi nga xam ne tàkkaale na ci sëriñ bi ne ko foofa de sama borom loolu de sama borom làq na ko fu yàq yëgul ndax suul la ko ci guddi gi moom sëñ bi ci biir loolu ma ma ma laajaale na ci rek mhm. ndax da nga tudd la am solo mooy xasida Ahmadou Borom Jaam mhm. wax Cheikhul Xaddim mhm. wax xasidaam yi mu am xasida bu mu mujjee muy xatimatu mun naa jaati mhm. moom la mujjee bind noon naa mhm. euh, moom bëggoon nga leeral ñu rek ñun ñi nga xam ne dañuy duy murit mhm. te duñu durus da ah. lan la ci sëñ Tuubaa wax ak tuxfatu lan la ci wax ñaari xasida yooyu lan la ci wax ak ab murit bii durus xasida ak ki ko durusul ban différence lañu am mm, waaw euh, euh, doguma bella mais foofu mu ñëw mm. xam naa moom mooy relancer ci bu ñuy duggee si si tomb yi ak xasida parce que foofu euh, bokk na ci point yi yi nga xamante ne euh, euh, boole nañ ko ci xam naa di ci lay pëtoxluwaale rek daal di tontu li nga xamante ne moom mooy sa question waaye dañuy ñëw ci ci ci ki nga xamante ne moom mooy suñu sang bi ah suñu Mourtada mm-hmm. comme saa ñu daal di lancer li nga xam ne mooy élément Touba ca kanam mm-hmm. le temps suñu am sa souffle tuuti mm-hmm. ñu daal di ñëwaat ci moom waaw sëñ bi dañuy ñëwaat juste rek ci li nga xamante ne moom mooy naka la ñuy war maay pour ñu mën a dugg si ci li nga xamante ne moom mooy Touba ca kanam. waaw war may Touba de. yàlla mi ko jox sëriñ bi. moo ko ko warmaalal. sëriñ bi it war warmaal ko. lool. ba bi muy nekk ci géej gi sax. day gis fu mu tuddee dudd. xel mépp ci Touba la nekk. lu metti metti rek yaa ngi koy dégg mu naan yasiru juuhi li Touba. ical rujuhi ila xawmi sahaadatana yasir rujuhi li tuubaa wax nii waqi nii asal waraa waltu tib li sama iskaana di yàkkamti bëgg dem tuubaa tuubaa di dëkk boo xam ne dëkk bu rëy bu màgg la sëriñ bi san sanc ko ci sarixatul mutahara wa xaqiqatul munawara di loo xam ne bu ñu ko doon xool kenn xamut dëkk bu ne mel ci àdduna sëriñ bi boo demee ci Matlabul Fawzayni mhm. ci nga xam fonk ko sëriñ Tuubaa ci Tuubaa mhm. ba bi nekk njaareem sax suñ masaan di tappale aw sàkket mhm. bu déggee ko naan melal ne ko jëm Tuubaa li daal ne ana wax loolu ñu ne ko diw mu neexal ko ci baatu Tuubaa ba mu dëkk fu ma seen séeni ku jógee Touba ndaka mhm. sama dëkk ba lay wax mhm. Mhm. yàlla suñ boroom nag natt ko ci lool ba nam fa bëggoon a nekke ci coobaree suñ boroom nekke wu ko na waaye mu jël njaboot gépp li nga xamal suñ tubaa fonk mu fonk tubaa mooy méthode bi mu ci bi mu ci bi mu ci suyee mooy bi mu ko defaree ba noppi daa jël jum yi nga xam ne ay jum lañ mhm. di ay leer yuy tàkk mhm. mhm. kenn ku nekk mu teg la ci ab jum ngir bëgg rek luy dugg Touba set wicc dañoo ñe da leen a duy jox leen ay saabu nag yu yuy mën a raxasaate mu teg leen ci xibla yi nga xool ni mu ko stratégie bi mu teg foofu nga xool Cheikh Mamadou Fadal fa mu ko dëkkal ci ndindi kuy dikk romb ko bëgg a dugg Touba boo yemee ci moom am lu taq ci yow du la bàyyi ngay dugg nga xool fi dëkkaloon siñ mbàkk siñ mbàkki buso te sell ga ak set ga ak ragal ga yàlla ak doylu ga ak maandu ga ak sàmm ga ak bëgg sëriñ ba moom it kenn ko romb foofa di dugg ci dëkk bi te meloo na nga war a mel sëñ ma sàmba gis nga ko ca wetu gànnaar ga ñoom ñëpp kenn ku nekk xibla bu nekk mu teg fa kenn Cheikh Ibrahima Fall ci sow ci Mourou Moustapha mhm. ca penku ba mhm. muy tindoo di mhm. ñoom ñëpp li stratégie boobu li ñu ko mën a jàngate rek ci ci ci ci xalaat ni ci gis-gis ak sëñ daa Abdourahmane Lo ca daal xalimul xabiir nga xam ne mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ñu foofu lañ jànge néewaana ku bokk ci sëñ bi te jaaroof ci góor ak ci jigéen soxna yi ñoom ñëpp xool ni ni mu ko gisee nag Touba nekk ci dëgg bi mu foog ñooñu ñu wër ko mhm. loolu am ab seetlu bu am solo la mhm. Mhm. nga xam ne kon day mel ne fonk gum fonk Touba te ñooñu ñëpp nag kenn ku nekk sëñ Touba noppi ci yow ba nga nekk insaanul kaamil set wicci yegg bay mën a yeggalee nekk mbañum rus ba noppi sax fees dell kenn du romb di dugg Touba kon tamit loolu na nga war a mel loolu lépp kon ci biir fonk gi sëñ bi fonk Touba da cay feeñaat macha mu waxoon nag ne li lil Moustapha lii banal quduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabadu boo demee ci fawsey ni day aar dëkk bi ci lépp loo xam ne luy luy luy luy luy luy luy ak mooy yàlla la mu jóge fi lépp lu nit di wut ak di ko bëgg bu dikkee fekk ko fi nit du fi jóge mukk di wuti dara waaye lu mu bëgg mu fekk ko sëñ Tuubaa la daan noonu la doon fonke woon mm-hmm. bokk na ci fonk gi itam wax nañ ni am na ku ma sa ñëw